ñaata ngi nii Adama ñaari mbëri lii mooy mbëru goox ak mbëru penc Bébé Bismi mbëru penc la Ada mbër mbëru gox la bu jugee Fass Gueule Tapée Colobane ñëpp jóg ànd ak moom ma nga noonu di sottee ko ay déeba déebam fa mu taxaw tooy na xepp moom Ada Fass ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana Bour Gueweul bu XFM saan dama ko daan woo doon auditeur am boo xamante ni saa yu defee émission ma dugg woo ko boo naan ko Bour Gueweul sopp na bi mu ne la am nga fi mbuboog ñaari junni buur yàlla na la yàlla yërëm te xaare la àjjana fële nga jëm yàlla na la dàqal fuuf fii nga jóge làmb ñàkk nañ ku rëy muy buur Gueweul bu XFM ñu koy jaale waa XFM yëpp ndeysaan di bokk ak ñoom tiis wi ak metit wi di leen ñaanal ñoom ñëpp ñi nga xamante ne ñu nga fa yal na leen yàlla yërëm te xaare leen àjjana te yéexañu ku baax buur géwél dem na ndaysaan présentation baa ngi noonu bu leen jaawale bébé bis mi moo leen féete ndijoor ma nga noonu ngemboo ngemb lu vert teg ceinture bu weex ci kawam rango benn gàllaaj yor protège-dents ba noonu ci loxo ba waaye que muy bëreel ma nga noonu Ada Fass lay bëreel Ada Fass lay bëreel Ada Fass a ngi noonu Bébé Bismi ngi noonu ndeysaan ndeysaan entraîneur baa ngi wax ak moom entraîneur Bébé Bismi ngi wax moom Bébé Bismi moo leen woon ginnaaw seex na protège daan ba ndeysaan cey làmb Bébé Bismi Ada Fass xaar ay weer di ko xaar ay semaine waxtu bi jot na Bébé Bismi moo féete ndijoor Ada Fass moo leen féete càmmoñ cey làmb Ada Fass li mu indi ci mistik bari na li indi ci mistik bari na ndeysaan sotti nañ ko benn butéel ña nga di ko sotti butéel naan na ci naan na ci naan na ci sottiwaat nañ ko ko ci yaram bi ndeysaan Ada Fass génnewaat nañ beneen butéel butéel bi butéelu lan la ndeysaan Bébé Bismi ngay bàkku ndeysaan Ada Fass sottiwaat nañ ko beneen butéel Bébé Bismi ngay jaayu ma ngay jaayu ndeysaan ah Bébé Bismi xaw ma lu ñu ko dee tey waaye am na confiance de tey làmb Ada indi na moo tax defet ak baax ci mbër Ada Fass concentration bi mu indi gëj ko indi ci làmbam jëfi xale la daan def arbitre na prip mu dox ñëw wala avant làmb ja muy bëggee di fecc di def lu ko neex Bébé Bismi nee na waxtu bi jot na Ada Fass kaay damay tëddi nee na Ada Fass kaay damay tëddi mbëri Bébé Bismi moo leen feete ndijoor Ada Fass moo leen feete càmmoñ ndeysaan Bébé Bismi moo leen féete ndi joor arbitre bi ngi leen di wax li règlement bi nangu li mu bañ képp ku fi ñëw yaa ko fi indi avertissement Bébé Bismi daa sotti Ada Fass am na lum ko sotti Ada Fass jiital na tànk cam ndi joor Bébé Bismi jiital tànk ndi ñaari tànk ndi joor la xeex bi dina neex arbitre bi sifflé na mbokk yi 20h36 Ada Fass Bébé Bismi le 11 janvier 2020 stade Diom Iba Mar Diop Ndia production indi ñu fi Bébé Bismi féete leen di joor Ada Fass féete leen càmmoñ mbokk yi ñu ngay lewaatoo ñu ngay xoolante ci bët Ada Fass moo ngemboo ngemb lu weex li takk takkaay yu bari Bébé Bismi bari wut li mu takk waaye ma nga ne tekk di déglu Ada Fass kan mooy njëkk a xeex bi danañ xeex ñoom ñaar ku koy sooke danañ xeex danañ bëre làmb ji ci kaw waaye ci suuf lay jeexe bëre tànk la Ada Fass mbotkat la Bébé Bismi daa mën riñaan ñoom ñaar ku ci nekk xam na sa morom Ada daw na jëli Ada daw na jëli Bébé Bismi bëgg na ko mbot mu bañ Ada Fass Bébé Bismi daw nañ rek jàppante xeex amut daw nañ rek jàppante dañoo nar a Ada Fass Bébé Bismi Ada Fass a koy dóor tànk Ada Fass a ngi yóotu tànk ba dóoraat na Ada Fass a koy dóor téye na ci loxo Bébé Bismi Ada Fass téye ci loxo ya dóoraat na benn uppercut ci suuf Ada Fass Bébé Bismi Ada mu nar day yóotu tànk ba Bébé Bismi dóor na Bébé Bismi Ada Fass ña ngay demee wet ña demee wet Bébé Bismi Ada Fass jàppante waat nañ luy am Bébé Bismi dóor na percute dóoraan na Ada Fass jël na tànk ba mu bañ cey làmb Bébé Bismi Ada Fass daan na Bébé Bismi Bébé Bismi ray boppam Ada Fass daan na ko jël bu rëy Ada Fass boo xamante ni ond la bu jëwoon daan fii ci stade Diop Iba Mar moom Ada daan na Bébé Bismi jël bu amul benn werante mbokk yi lu lu di nettali stade Diop Iba Mar Diop moo ko tëj di bëre dóor